moom ñooñu ni may ci yéenekaay yi yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf yéenekaay bu ci woow it boo moytuwul ba nga dendal dana la tooyal ndax waxi ndox mu bari mu journal yi xëye jëral xët mu njëkk Soleil national mi ngi ñuy xamal ne tey ji ci altine ji ca la ñuy tàmbali ca jëm ñaajo ndaje mii di neuvième forum mondial de l'eau juróomi fan mu ñuy waxtaane wàllu ndox mi ak lépp lu mu lamboo journal bi xëy ñu defal gëstu bu yaatu ci ndox ak i jafe-jafeem ci réew mi am ndox gu ànd ak la ñuy bi nañu dégg nañu te mbir ci télévision nationale Serigne Mbaye Thiam ministre eau ak assainissement muy xam ne ne lu jege juróomi junniy participant ak juróomi téeméer bindu nañu ngir teew ci forum bi te ci ñoom ñaari téeméer ci réewum Sénégal gi la ñu dëkk l'observateur nañu ñoo ngi séentu ci xew it ay njiit réew ñi ci mel ni njiit réewum Mauritanie njiit réew bu Congo njiit réewum Guinée Bissau ak njiit réewum Éthiopie Sénégal Vox Populi nee nañu fii ba ñaar ci kaw yi ñoo xam ne ndox mu baax te doy dégg rek la ñu ci am direct news nañu ndox mi ak jafe-jafeem ci réew yi di seen eau di joxe ak perturbation yu rëy yam ci distribution yi askan wi ñoo ngi koy jooy guddeeg bëccëg député yi ci assemblée nationale it heure wax ba yegg ci wàllum ndox ci ŋàññi seen eau ci la dëkk yéenekaay bi nee nañu ñàkkum ndox gu rëy la fa dund ginnaaw ndox mi nañuy wax ci courant bi ki jiite kër gi yore courant bi ci réew mi di Pape Mademba Bitèye directeur bu Senelec moo nekk ci xët mu njëkk l'Observateur li sabab waxtaan yu moo xam ndax xeex bi Russie nekk ak Ukraine mën naa juri conséquence ci courant bi réew mi am déet Pape Mademba Bitèye directeur général bu Senelec mi ngi dalal xel yi ci wàllu woowee nee na wàllu Observateur jël nañu ay matuwaay yu woo kong di ay mesures conservatoires yu ñu jaare ci ak vigilance ci stock yi Senelec yi boole ceekit di jëfandikoo ci anam wi gën fexe ba maîtriser njëgu courant bi koom-koomu réew mi l'info mi ngi wax ci xëtam mu njëkk ne waa FMI di fonds monétaire international rafetlu nañu ni muy doxee ci réew mi waaye nag ñoo ngi dànkaafu kilifa yi réew mi ci anam yu bari mutuelle de santé des agents de l'État libération nee nañu ak noos ak gundaandaat ak ndaataatalax gu rëy moo fa am ubbil yéenekaay bi ci diggante 2018 ba 2020 journal bi nee mille 413 yoo xam ne kenn xamul fan yoo xam ne ci marché bu am ci mutuel ba ñoo koy gagné cent vingt et un millions six cent mille yu ñu ne def nañu ko ci ay mission te kenn mus a gis fenn benn ordre mission li gën a dee nag li benee nañu mooy trente trois millions cent soixante mille yu ñu fay ci ay facture proforma jàppante bi soldat yi Sénégal yi nekkee ca Casamance ak fippi MFDC yi tongal leen sonal leen fitnaan leen fukki fan yàlla boobaak léegi réew mi quotidien nee nañu bilan ci tukkee maanaam la Casamance làqu ji Gàmbi te yéenekaay bi nee nañ waa Croix Rouge nee nañ ñoo ngi ragal yëfi romb foofu feneen fu ñu xëy gis la xew ca Casamance moo de ci journal La Tribune nee nañu fipp yi ñoo ngi ci guuta jamono ji ndax soldaar yi dañu leen wër ndomba ki yoon wër ndomba ba koy bëgg a L'Observateur mi ngi ñuy xamal ne moo di Boy Djiné ne lu jëm ci réquisitoire définitif bu parquet bi am na yeneen juróom-ñaari mbir mu di li ñu tuddee ci wàllu bakkan bu makabar ay doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ci anam wu yéeme bokk na ci benn borom kër bu pandar boppam ca Bambey benn étudiant bu pandar boppam ca Pikine étudiant boobee pandar boppam ci Pikine les éco indi lañu ci ay leeral yu gën a yaatu mi ngi ñuy wax ne ca Pikine ICOTAF fa la xewe ki def loolu ab étudiant la bu nekk ci université virtuelle du Sénégal bi mu pandaree boppam xaru la ko tax a xaru baayam bi ko jur la ko jéeñ moom étudiant bi toll ci ñaar fukket ak juróom les laata muy xaru dafa publier ci statut am ne sama dund gi yépp li ma ci réccu mooy li ma juddu